bu avant arbitre di lan nga ko waxoon lan lan nga doxoon mu sàmm ko. waaw man Balla li ñu waroon waxtaan yëpp dañ ko waxtaanee si entraînement ndax mën naa ne tey jii ñooy xëy di entraîné ndoo maag moom di yendoondoo di def lépp maag moom tey jii sama communication ak moom fii tey du bari ndax gis nga tey ñu bëri nee nañ ma Lamine lan la lan dañ la gis nga ni tekk waa waa tekk jàpp sa ñàmbur boobu làmb ji moo ko laaj ko waa ndax tey jii vigilant la laajoon ak concentration ndax bugguma woon loo xam ne nii lu may perturbé la moo tax ma ni tekk di bàyyi gars yi nekk seen i bagage rek mais li may wax rek sunu borom def na ndam daal kontaan nañ bu baax a baax. xanaa a xeex xeex sa bopp taxawal ci say tànk damaa gis rek Balla taxaw di direeku di lijjanti lan la. làmb dafa metti tey jii li si nekk yëpp sax munoo leen ko xam mais combat bi dañ ko préparer difficilement waaye ah. dañ ko préparer difficilement waaw difficilement mooy lu bari dafa changé quoi lu daan am te amatul ak yu bari mu métti trop non waxuma ci cadre boobu loolu du problème ndax te jii ñun man si côté sport laay waxee dañ koo entraîné difficilement nag mu ànd ak booy yi école de lutte bala gay yëpp ma ne di leen sant di leen gëm ndax sonal naa leen heure bu ne yee naa leen fu ma ne leen acce ñu ne ayca poussé nañ seen mag jàppale nañ ko contact nañ fu ne dugg nañ fa ba suñu borom may nañu ndam daal incha allah non xeex bi dafa ñëwoon nii rek bëre bi sax lañ programmé woon. dañ ñëwoon dañuy ñëw jàpp daan dem suñu yoon. ko Gris Bordeaux jël jël benn boobu est-ce que préparé woon nga ñoom ñëpp jël nañ coup ñoom ñaar ñëpp mais tey bala tey jii lii rek war na ni ko liggéey moo wóor entraînement tey feeñ fi ndax non jël na coup yoo jël laaxi jël na xeex na kaawoon na dëbu mais suñu woon kattan ak entraînement am na yu bëri feeñ mais daal ñu ngi sant yàlla bu baax jàmbaar la mbër la ñun daal école de lutte Balla Gaye naanaan nga naanaan nga dañoo fekkee ñun dañoo fekkee yow Lamine dañoo gis pied bi pied droit bi bi Gris Bordeaux teg dafa mel ni moo gën a yéexal làmb ji ci ci ci Balla Gaye waaw moo ko gën a yéexal te boole seeg bi Gris nangu ta taxaw Gris heure bu baax la du soo xoolee Gris Balla moo déclenché obstacle yi moo def lépp Gris nangu ta taxaw nangu ta def mu ngi déplacé wu korosé xeex bi rek la Gris xeex rek la indi indiwuloo la leneen Balla nag dafa defoon ci xelam nit ku too soo gisee ku yi mu jël sax li tax mooy dafa defoon si xelam dama koo war a jàpp loolu moo tax sax Balla jël coup ñu gis bi mu jëlee bi mu kaaw mu reculer Gris accéléré ci kawam. dafa taxaw mu taxaw. non dafa boobu moo ko def Balla dafa jël coup am na doole bi mu tax bi mu tax arrière trois pas boobu xel mi ñëwaat na si la taxawee te boobu gisoo bi mu taxawee moom moo xeexat si kanam saako yi moom moo fa xeex moo song. combat bi nga booy tontu nañ la nee nañ àdduna moo changé. du moom kase lay saa buy bëree bëreewul moom kase ay kiri yu bëri la bëreel. yàgg na Balla Gaye de bu bàyyee. waaw waa te waa waa dañ ciy nekkaat di liggéey rek ñu ngi ci liggéey bi te dina baax incha allah. ok.